tey bu dajale fii tey lu Sénégalais yëpp war xam la te ñu dajale fii tey buñ ci àdduwul ci gaaw jàpp ni liy taal lay jóge loolu mooy Macky ci mbébétam bi mu ne te ëmpul benn sénégalais ni faw rek mu am ñetteelu mandat te loolu pour mu am ko il faut mu fexe ba xoj sénégalais yi ba kenn dootul ñeme ne d'accorduma rawatina nag naan maa ngi génn di ko manifester ci cadre boobu yéen ñëpp gis ngeen ni li mu njëkk def mooy fexe ba doole laatal boppam ci wàllu polis ak gendarmerie gannaaw bu mu ne dina recruter 6000 personnes 3000 di police 3000 di gendarmerie ña fa nekkoon it te di ay kilifa. te mu lott ci def loo leen lu ñu bëggut a def da leen fa jëlee andi ñeneen ñoo xam ne yaakaar na ni lu mu leen sant ñu def ko loolu muy le volet répressif ci wàllu police ak gendarmerie waaye loolu doyu ko mu nekkoon il faut mu am lu ñuy wax un juridique mooy ci wàllu yoon il faut ma tëgg ay loi yoo xam ne dina nekk lu ñuy teg ci kaw Sénégalais yi ba ku yëngatu rek ma am fu ma ko jaaree mën koo tëj loolu nag da koo dugal ci cadre lu ñuy wax lutte contre le terrorisme gis nga caay-caay bi nekk ci ñii la ñuy def defuñu ko walla waxuñoo ak Sénégalais yi waaye xam nañ li ñuy wooyee communauté internationale baat bi ñu gën a ragal tey mooy sonnee terrorisme régime dictateur yi nekk àdduna bi yépp fi ñuy jaarale ni ñuy def pour noot seen askan ci jamono ji mooy ku yëngatu ne ànduma ak yow nga ne terroriste la ku yëngatu ne opposant la nga ne terroriste la ku jóg ne société civile la nga ne terroriste la ku jóg ne mouvement citoyen la nga ne terroriste la moo tax depuis mois de mars ba léegi depuis février ba léegi seen coow yépp ci terrorisme lañ ko yóbbu damay wax Sénégal nag ñun duñu nangu ñeenti nit dong ndax seen système bi yaatu na sàmbamboo yi ci nekk bëri na waaye ñeent ñoo ci gën a fës ñoo xam ne ñoo jàpp ñoom mën nañoo def lu leen neex ci réew mi muy Macky Sall ci boppam Antoine Diome son ministre de l'intérieur Malick Sall son ministre la justice ak ki nga xam ne mooy son procureur la république ñeenti nit ñoo bëgg a taal Sénégal donc yo bi ñu defee loolu dañoo dem yóbbu assemblée nationale benn projet de loi ñaari projet de loi ndax benn bi day modifier le code pénal ci boppam ñaareel bi day modifier le code de procédure pénale code pénal moom mooy teg daan code de procédure pénale mooy wax procureur ak juge ba ci police ak gendarmerie naka lañuy ñuy doxalee mbir mi ba mu mun a yegg fa mu yegg ñu dem yóbbu benn loi waaye ci loi boobu dañ fa dugal titre 2 tuddee ko de la piraterie maritime des actes de terrorisme et des actes assimilés ci chapitre premier bi ñu jagleel ko li ñuy wax les actes de terrorisme moo njëkk a wax ni lu ñu ne terrorisme la rek premier conséquence bi mooy ak fu mu mën a amee Sénégal procureur moo compétent c'est-à-dire suñu nee manifestation terrorisme la bu nit manifester Touba wala mu manifester euh, euh, Matam wala mu manifester Ziguinchor benn compétence la mooy procureur mii muy procureur Macky Sall ñu dem jël tuddee ko. ne léegi dañuy dugal ay législation ci terrorisme waaye li njëkk a yéeme mooy loi bi définirul lan mooy terrorisme parce que loi lu muy wax rek da ko war a njëkk a définir mais loi bii ñu war a wote ëllëg assemblée nationale définirul lan mooy terrorisme muy premier problème ñaareel bi mooy dafa dem jël ay infraction yoo xam ne amoon na ba pare ci code pénal code pénal définir ko ba pare wax naka lañ koy sanctionner code de procédure pénale daal di définir lan mooy procédure bi ñu dem jël loolu yépp nag ne léegi loolu mooy terrorisme dañu dem jël ay infraction yoo xam ne lu am la ba noppi te amul benn ci infraction yoo xam ne di nga dem tey ci àdduna ci réew mu civilisé ñu ne lii terrorisme amut guleen ci Sénégal mu dem jël yooya ne lii mooy terrorisme léegi ma limal leen ci yenn nee na la tuddee les attentats et complots visés par les articles 72 et 84 du code pénal loolu mooy lépp li nga xam ne dafa remettre en cause l'intégrité territoriale wala attentat complot et autres infractions contre l'autorité de l'État loolu code pénal bii ñu yor nii daf ko définiroon ba pare sanctionné ko ne ku ñu jàpp ci loolu pen li lay daan mooy dina nekk ci diggante 10 ans fukki at ak 20 ans ñaar fukki at ñoom ñu ne léegi loolu terrorisme la première conséquence bi rek il faut ñu téye ko mooy li ñu qualifié yépp ne li terrorisme la dañu ne loolu condamnation à perpétuité la perpétuité mooy sa girum dund kon soo jëlee loo xam ne amoon na déjà ci suñu loi loi bi qualifié ba pare ne lii ku ko def ba ñu am firnde ne yaa ko def dinañ la daan te diggante euh, euh, fukk euh, ak ñaar fukki at la nga ñëw ne léegi loolu terrorisme la mooy tey buñ ci jàppee Cheikh Bamba dañ koy tëj ci giirub dundam ñu ne ñaareel bi mooy les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85 et 87 insurrection mooy ku woote fippu lool it loi bi définiroon ko te tënk ko ci peine yoo xam ne mënul dépasser vingt ans ñetteel bi mooy les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions commises lors des rassemblements lu am solo la lépp loo xam ne rassemblement la sëñ bi léegi dafa ne bu ñu autorisé woon mais même bu ñu autorisé bu amee tuuti département ñu ne toj nañ ci ay oto wala lakk nañ ci ay pneu nee nañu loolu terrorisme la te loolu c'est passible de peine loi bi fi mu toll nii mi ngi ne woon un à cinq ñoom nee nañu léegi non seulement la waaye kuñ ci jàpp dañ lay tëj sa giirub dund rassemblement cest à rassemblement bi ñu doon def démb dugg na ci lii nga xam ne ñoom seen bopp ñooy dem infiltrer rassemblement bu amati bu ñu paree seeni sàmbam booy sànni ay xeer ñu ne yéen ñi ko organiser yéenay responsable bi terrorisme la dañ leen di tëj seen giirub dund ñu teg ci enlèvement séquestration etc etc nga xam ne loi bi dafa ne woon 10 à 20 ans léegi terrorisme la destruction dégradation et dommage visés aux articles 46 et 49 léegi terrorisme la dégradation des biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique prévue par l'article 225 mooy tey léeg-léeg nga gis nit ñi xaw a mer ñu ne taal nañu benn bus ñun duñ ci duñ ci encourager kenn ndax suñu alal la waruñu koo taal te loi bi daanoon na la ba pare ku def loolu ne ku ko def suñ la jàppee dañ la tëj lu mat deux a cinq ans état bi Macky Sall nee na léegi loolu terrorisme la kuñ ci jàpp dañ la tëj sa giirub dund ñu ne association de malfaiteurs ak vagabondage ak mendicité article 238 à quarante nee nañu loolu léegi terrorisme la ñu dellu si waat ne les menaces prévues aux articles 290 et suivants mooy menacer nit terrorisme la léegi loi bi dafa noonu 2 à 5 ans maintenant à perpétuité la ñu ne blessure et coup volontaire blessure et coup volontaire ñaar ñu xeex dóorante am blessure coup volontaire et cetera léegi terrorisme la ci Sénégal mu ne les vols et exceptions prévues par les articles 364 à 372 c'est sàcc soustraction frauduleuse du bien d'autrui léegi sàcc au Sénégal terrorisme la le Sénégal de Macky Sall alors les infractions liées aux technologie de l'information mooy ñi ñuy wax mafia kàcc-kàcc Macky Sall nee léegi kum ci jàpp ku nekk ci Facebook bi def ay post yu ko neexul bu ko neexee mu ne terrorisme la ñu jàpp la dañ daa war a tëj sa giirub dund gudd na torop mais dama koy tënk foofu parce que dama ci sànni tuuti sama naataangoo yi ku nekk am lu mu ci sànni lii mbokk Sénégal lu garaaw a garaaw la amul ci benn dëkk ci àdduna amul fenn dëkk bu ñu jàpp ni dëkk bu normal la bu ñu jël lii ne lii terrorisme la ba ñu mun a doon benn furtu Macky Sall di jaar pour tëj nit ñi mais li gën a garaaw mooy ba ñu tënkee loolu ba pare dañu ne léegi procureur jox nañ ko ay pouvoir yoo xam ne pouvoir de confiscation ba ci ak pouvoir de contrainte par mooy suñu nee lii jiiñ nañ ko sëñ Cheikh procureur am na sañ-sañ ne ab lu mu am ci alal yëpp dañ koy nangu xam nga loolu mooy méthode yi am Israël nga xam ne su ñu nee benn palestinien def na attentat ñu ne dem leen raser këram yaayam ak baayam ak yéeguñu suñ yoon new ci kon ku ñu ne jàpp nañ la ci loolu nee nañ mun nañu confier li mu moom yépp ci alal seetuñu doom seetuñu jabar seetuñu waa soxor gi lan moo ko waral ñu ne ba tey am na pouvoir contrainte par corps sur les délits politiques loolu kenn mësu koo gis délit politique nga ne léegi am nga ci contrainte par corps te su ñuy def seen yëfu caay-caay dañuy essayer neexal ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñoom ñooy wax moo tax ñu ne xam nga délit de presse délit politique la mais dañu ne léegi délit politique am na contrainte par corps ba mu des presse bi ba mu des presse bi yéen moom kenn yàbbu leen ñu ne ensuite léegi juge d'instruction bi jox nañ ko pouvoir yu yaatu yoo xam ne su toogee ba soupçonné ni ah Cheikh Bamba Dièye mii de est-ce que du terroriste am na sañ-sañu mettre Cheikh Bamba Dièye tout de suite sur écoute ay téléphone am ay euh, mail am lu ne am na sañ-sañu def ko sur écoute di ko intercepter ci sañ-sañam te bu ñuy def seen caay-caay ni ñu ko defee ci presse bi dañuy am ñu ñuy neexal pour ñu bañ a wax nee nañ loolu avocat bokk ci juge bokk ci député bokk ci ministre bokk ci wala ñoom su leen ko war a defal dafa am procédure spéciale boo xam ne il faut que mu am beneen kilifa buy valider waaye keneen ku moom sëriñ si ci boppam dañu xam ni tey juge am na sañ-sañu toog mettre leen sur écoute quand il veut et comme il veut loolu violation bu garaaw la sur la vie privée des Sénégalais amul fenn ci àdduna kon yu garaaw garaaw la yoo xam ne comme dañoo nekk ci table te kenn ku nekk ci gars yi am na loo ci jàngat loo war a yokk lii nag mënuñu ko nangu ci Sénégal damay wax sénégalais ni projet de loi bi moo gën a dangereux fuuf nag li taxoon sénégalais yi génn ñu naan ticket parce que Macky Sall nëbbatu ko Macky Sall ab dictateur la waxoon na ko ab kilifa bi muy doog a toog 2012 ne ko sénégalais ils ne connaissent que la force dinaa leen gouverner par la force lii xewoon mois de mars la ne léegi dinaa fagaru anticiper parce que li ma nekk duma ma ci changer virgule bu ko sénégalais yi nangoo nag. li ñu amoon yëpp ci acquis démocratique depuis des décennies et des ci lu gaaw Macky Sall ñëw ne man Macky maa am sañ-sañ bi ànd ak samay nit dinaa effacer loolu yëpp tey bu boobaa nañu xam ne dina fi duma nit bëccëg biir kam kenn doo am foo ko kon lii c'est particulièrement grave